carte d'identité bu bees bi nga xam ne léegi moom mooy dox ci biir Sénégal yamul rek ci Sénégal ndax carte bi boo ko amee bépp réewu Afrique sow jant ñu tuddee ko CEDEAO dana fa am maanaam dana fa valable carte la bu nga xam ne am na sécurité bu wóor la boo gisee d'ailleurs niñ koy doxalee dañ ko boole commission yi nga xam ne waa Sénat ñiy saytu élection yi dinañ toog parti politique yi opposition majorité daañu toog administration bi daañu seeni représentant daañu toog muy administration préfet sous-préfet yi ak itam maire yi danañu am seeni ndaw yu fekkee maanaam fi ñuy doxalee euh, carte yooyu la ak waa Sénat Sénat nag mooy saytu élection yi carte yi képp ku koy am da nga jël sa fukki loxo ñu jël maanaam rëdd yi muy empreinte kon muy nekk carte boo xam ne mosuñu am bu wóoree nii fukki loxo yi buñ ko xësee jël te duñ la defar l'encre nañ ko daan def bu njëkk ba nga xam day tilim day te du am maanaam lu wóor. fukki baaraam fukki baaraam fukki baaraam suñuy loxo moom lañuy jël. ñu dugal ko ci machine bi balaa ngay jëlaat sa carte itam faw ñu xoolaat nga dugalaat lu mu bon bon baaraam ba machine bi confirmé ne yow mii yaa moom carte bi keneen ku ñëwoon di ko jël ci itam du si mën jot kon garantie ak sécurité foofu la mën a yem tey ci li xam-xamu doomu aadama di def may wax ne ñoom ñi ko defar muy waa IRIS xamal nañ ma ne ci àdduna bi benn réew bu tudd Lettonie moom moo am façon bi nga xam ne carte dentité bi ak carte d'électeur bi ñoo bokk benn say euh, ginnaaw boobu Sénégal la am ci Afrique tam ñun ñoo jiitu ci CEDEAO ci li nga xam ne fa la réew yépp nag war a jëm ndax ku ne xam na ne tey ak wàllu sécurité lépp lu ñu def dafa war a am euh, maanaam li ñuy wax données biométriques mooy nit ki du rek ay bind këyit wala këyitu juddu wala passeport waaye si sa maanaam euh, rëdd loxo si la ñuy xàmme nit ku nekk te loolu machine bi daf koy daal di jël pour ku nekk. léegi nag maa ngi ñaan réew mi yëpp ñu xam ne ginnaaw passe euh, carte d'identité yu yàgg yi ñu amoon fii ak décembre dootul dox maanaam ku ko waneeti amatul benn valeur kon na ñëpp fagaru jóg wuti seen carte d'identité. pour le moment kenn du ci fay dërëm a baamtuwaat ko kenn du ci fay dërëm fii ak ñuy pare diir bi ñu joxe gën gaa néew di diir bu jëm ci juróom-benn weer ba ci maximum at waaye bu weesoo loolu nag ku si binduwuloon boo bëggee ñëw da nga fay ñaari junni pour nga am carte bi ndax dafa am lu muy jar lu seer seer waaye gouvernement bi moo gàddu lépp di ko jox gratuitement citoyen kon nag ku yebu jóg ca ba ngay ami tànk dem bindu jël sa këy denc ko fu wóor bu waxtu wote jotee nga am loo wote su waxtu wone carte d'identité jotee sa lépp dana nekk ci sa carte d'identité te loolu Sénégal mooy réew bu jiitu ci Afrique sowu jant def ko